Salut les amis de eSport TV et de Babo Show. Merci encore, gars, de la confiance renouvelée. Merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également. Et bah, ici, les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois, d'y partager une information, inbox sénégalais. Fait pour les maintenir 14 régions du Sénégal. Rokhoukhari, Gogokhari, Ninglin, Djadjifol, Ninek également, qui est à l'hôpital et du tout de février. Amna, une bonne fois que c'est une bonne gamme. Ninek, tu casses, ramené aussi. Erreur judiciaire, Guinée, Ninja, Fumon, Foyo, Simbrom, Guinée, Feu, Delaware, Lensen, Ninjabot, ni de droit de nos Simbrom, Khalena, Genifendo, Sigaïta, Yé, nous on avance ensemble dans la magie de Babo Show et des eSport TV. L'actualité en conjugue avec Tatouine Fassel donc rebondissement dans l'affaire de Thomas Tuchel du côté de Bayern Munich, Nagelsmann qui se fait des ennemis en Allemagne, mais également donc FIFA ak dogal bi mu jël moo waxoon len ko fi dal ñu bëgg ko concrétiser lépp ñu fas yéene ko wasaare ànd ci ak leeral la boobu nak yéen kay bi xamna moy donc euh, stade ci xëtamu jëk ñëw ni Sadio en tête devant Nian Papis Demba Cissé meilleur buteur sénégalais de l'histoire en Europe Sadio Mané daal actuellement nekk le nouveau Sadio Mané perdu à cause de la guerre fofu ci Ukraine di Samba Diallo Marseille perd ses illusions Jackson pourchasse Pape Matar pour lui ramener en course à l'Europe li nga xam ne jamono jàll Tottenham moo gën a ak Europa League bi nga xam ne la daal yi fini ni accroché en attendant Chelsea nag di def fin de saison bu exceptionnel avec un Nicolas Jackson plus qu'en forme dem nag ci yéenekaay bi nak ci sun lamb wax ci nga ma donc lak de Guiers 2 bi ñi daal di japp yoon ko loxo ñaareel fan mu dégg nga ci commissariat bu central ndax walum liñ ne ay euh, xaalisu jambour buñ ko ci tuumaal ndax da leen waxoon ne da leen bëggoon a yóbbu tugal loolu daal fini ni nii mu indi daal di indi ay coow gu rëy rëy pendant ce temps ñii di wa Manchester City génne nañ seen maillot donc domicile saison prochaine ngeen gis ko nii mu nekk ci natal bi donc Manchester City les Citizens ah maillot bu rafet daal la ñu am di design bi ci loxoy bi séduire parce que il se décède donc on a l'habitude de le voir mais c'est phénoménal pendant ce temps Hendrik mauvaise nouvelle pour Hendrik et le Real Madrid Hendrik blessé durée de blessure bi ñaata temps la ndax gravité bi yëpp waxaguñ ko mais en tout cas actuellement c'est exceptionnel et également plutôt euh, plutôt Real Madrid à Palmeiras ñu ngi retenir seen Souffle. qui nak di Nico Williams mom dal fi mu ne Bilbao xam nañ ne fi mu ne nii daal ku teg ko partie table bi ni dal ko jay Barça da ko bëgg mais Barça xam na ne moom clause libératoire ak boy bi yépp liñ ko wara def ñom mënuñu ko ci euh, def on parle également de club anglais mais aussi du Real Madrid probablement pendant ce temps Aymeric Laporte bi nga xam moy le coéquipier de Sadio Mané du côté donc Al Nassr gars yi nga nane naan jamono ji moom boo day dellu si du côté de l'Espagne on parle beaucoup de lui du côté de euh, Bilbao le défenseur central bi nga xam il veut retrouver bien avant évidemment donc euh, li donc championnat européen avec mercredi, euh, Denis Van de Beek, hein, le joueur donc hollandais, fils avec le Binec du côté de la Serie A italienne, mais consacré du rôle. Donc aujourd'hui, la situation du joueur de 27 ans donc, de Manchester United, Denis Van de Beek. Pendant ce temps, Cameroun équité mondial technique définitivement les portes du Cameroun. Néana Diamouni, su fekkee war naa sama bopp baax a ont fi nga xam sama club bi ma on est ko également euh, fi nga donc aussi que France n'est plus si seen une bonne am chance jouer pour l'équipe nationale pour France le loolu mooy sama bëgg donc loolu daal mooy réalité bi Cameroun moom xalaatuma right Alors tout le ki nga King également aussi mooy homme Sofiane Amrabat moom nag gars ah, donc mon fin de saison bi aussi def na des match phénoménal à ah, Manchester United mais teew dal fini li gën a du côté de la Fiorentina parce que convaincre à 100% les dirigeants mancuniens pendant ce temps liste qui joue équipe joué coupe de l'Europe, mi la National Manshaft qui a sorti sa liste Gengisko ah, donc bien évidemment Florian Wirtz Mingsi donc euh, le Ken du ko Jamal Musiala Tony Kroos le retour mais également Oli euh, King Emmanuel Né mi ngi si ak Mark ter Stegen ñi ngi ci ki nak également nga xamné ne gaay moy donc Nagelsmann Nagelsmann qui se fait des ennemis ndax Hummels ak Goretzka demuñu ak yenen joueur di Ñabri et tout mom nag fi ni gaay yi ñu commencé di casse lu tax yóbbu mais nak néna wax nak joueur yi même bu fekké né décevoir na leen jox na leen raison donc aujourd'hui dal Allemagne moom ah dafa mel ñu nekk di rajeunir nank-nank sen équipe bi kii nag Richard Ñabri problème ak euh, problème de santé yi mu muy problème ak blessure et tout motax dal gëna tax demul du côté donc euh, de l'Allemagne avec euh, donc la nationale

ñoo bëgg recruter le joueur du Borussia Dortmund rebondissement du côté du Bayern Munich waxoon naa leen ko fini nak ne nii Bayern ñoom dem nañ ba wut wut amuñu euh, Thomas Tuchel dal fi ni dal lañuy bëgg waxtaan pour mu daal prolonger waxtaan yi jublu bu baax mom nak moom nag Thomas Tuchel ne dafa bëgg a sentir il est euh, dafa am confiance dirigeant yi et mën na fa toog 2026 lo dal le bëgg jamono ji loolu la gars di waxtaanee mu nek rebondissement temps dal daal toog dellu ginnaaw wax waxet mo am ndax Xavi def na ko du côté de Barça fi ni nak mom nag ki di euh, Thomas Tuchel ak wa Bayern Munich ñi ngi dellu ginaaw parce que fi ni amuñu entraîneur bo xamné bëgg na ñëw côté du Bayern et que Thomas Tuchel moo fi sës te moom nee na daal ko wan ne am nañ confiance yu moom kii nag di FIFA ou naa ne ko ak Gianni nous ñoom lañ bëgg daal mooy coupe d'Europe bi ak plutôt compétition européenne Nous ñu koy di jouer championnat yi ci yeneen dëkk di ko exporter maanaam comme euh, ñi di waa Real Barça mën ko jouer du côté des États-Unis Paris Saint-Germain Marseille ñu mën ko jouer Ben en tout cas là daal lañ nekk jamono ji waxoon naa ne ko ay jamono fi nii gën di concrétiser wu gars yi lii mu nekkoon information yi leen bëggoon jox c'est toujours un plaisir de vous servir wooy leen di like wooy leen di abonné on avance ensemble dans la magie de Babo Show et de eSport TV bu baax ci le la bonne suñu loo